li waral ndaje mi ñu doon def fii tey doon fi wàccee kaamil doon fi wàccee kaamil li ko waral lenn rek la kenn ku ci ne ci actualité fan yëpp yéen a ngi dégg coow li xew ci réew mi muy coowal daara yi euh, te kenn ku ci nekk gis na ni yëf yi déroulé ak ni mu mujje loola kon dafay waral ni am na mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk balaa ñu koy defati wala ñu koy wax war nañ koo seet seetantal ko ndax réew mi fi mu toll jàmm lañ soxla benn li xew nag ci mbiri daara yi indi précision d'abord ba pare leeraloon ko ci yenn pour clarifier une fois pour toutes mu leer li clarifier rek mooy coow li bi mu kenn ku ci ne dégg nañu wax kokki la du bu wax bu c'est à 15 km de la kon encore une fois muy une fois pour mu mu jeex léegi kon loola leer na du daaray kokki amewul daaray kokki mës sa amee daaray kokki kon njaañ la amee woon loola nag ñu ngi koy naqarlu maanaam sunu mbokkum dongam daara moomu doon jàngale foofu ba loola am kon loolu it ñu ngi koy tiislu ci jafe-jafe boobu ko dal tey ñaan yàlla yàlla na ko yàlla teggi te incha allah yàlla dana ko teggi